waaw xam naa ne kon dañuy bàyyi euh, mbokk bi mu nodd am na ñu ngi may waxit ne xalimatu saadiya nga xam ne moo nekkoon secrétaire u cardinal Thiandoum xam ngeen dafi tuuboon dugg ci lislaam alhamdulilah alfate lislaamam jokkoog mbokki jullit yu bari dañ ma waxoon tey ñëwoon na ziyaare tafsir bi xam naa ne maa ngi doon ko ñaan su doon te ne nee yegsi na mi ngi ci jàkk te mënoon a ñëwee ci bunt bi ci kanam même bu doon te ne mën na nuyu mbokk yi ngir ñaax suñu mbokk jigéen ñi ci loolu tollook ay deux trois minutes loolu dana doon lu leen di ah, gën a dolli xaw ma ndax euh, soxna Mouhamed Mbaye bi mu àndal bu dee mën nañ ñëw ci bunt bi ñu noddee ba pare rek mu am kàddu yu mu jox suñu mbokk jigéen yi incha allah secrétaire u cardinal Thiandoum bi ngeen xam yéen ñëpp yàlla dogal mu tuub dugg ci lislaam am na it ay mbokk yu bari xam nu doon Touba ak feneen ak feneen ñoo xam ne am na taxawaay yu bëri yuñ taxaw ci moom suñ mbokk Medoune Mbaye sax tudde na ko benn doomam tey dañ ñëwoon di nemmee ko doon te ñu yàgg nañ dégg yu mu doon def ay conférence mu doon def comme yàlla indi na ko fii tey ñu bëggoon mu yëkkati ci fi kàddu yéen góor ñu dégg ko waaye suñ mbokk jigéen yi am lu ñu dégg ci moom rek incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi am mbégte lool. ci teewaay bi ñu teew fii ci suñu kanamu ay mbokk jullit ay frère ay tonton ay papa di jaam bu néew doole nag bu ñëw ziyaari ci leen rekk te yàlla tax alhamdulilah ala kulli xaal bañ yàlla wonee dëgg ndax islaam rek mooy dëgg comme ni ko mbokk mi waxee rek ñu ngeen ko déggee noonu la amee bi may convertir di nekk jullit ñetti fan moo ma dese fii ci Sénégal wala ñaari fan ma waroon dem Italie ci pape bi dem Italie ci pape bi am fa sept ans yàlla di ma wanali ak ay gént may gént gént boobu nag comme waxtu bi duñu ko may te dafa xaw a gudd ngeen baal ma rek ma tënk ko gént boobu nag mooy li ma dévier ba dugal ma ci islaam bi ma ko mujjee gis rek ci nim ma def laa leen di wax bopp bi metti la ma dikk tëdd naa ko bi ma ko tëddee ñaari fan benn fan laa ko tëdd ba ko ñaareel mu ñëw fekk ma fi ma tëdd mu yëkkati ma wan ma place bu rafet laaj posé ma it ay question ne ma ndax mas naa gis place bu mel nii wax dëgg yàlla fi ma dem bari na li ma gis bari na waaye fa ma dugal masumaa gis fu ni mel ma tontu ko ne ko déedéet mu ne ma ndax xam nga fii ma tontu ko ne ko déedéet mu ne ma yàlla rek nag moomu boole ak yow yàlla kese moomu boole ak yow ndax jullit yi de bari nañu ma bëgg a gis waaye mënuñu maa gis yow nag yàlla dama boole ak yow lii yépp nag nga gis sa wërsëg la waaye boo waxul ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulillah sallallahu alayhi wa sallam doo si jot muy lu metti ma dund ko ma yeewu toog ci lal bi xalaat lu baree bari sama ginnaaw ak sama kanam sama ndejoor ak sama càmmoñ mu doy waar lool waaye yàlla may ma kàttan ndax du man ma jóg seet naa lu ma daggee létt yi ma àndaloon gisuma ko ma làmb weccet dem jënd lancet ñoo dagg mèche yi nekk sama bopp bi yépp dem si benn xale bu jigéen bu dëkk si koñ bi day jàngee ko oustaz Abdallah Pam ma ne ko na ma yóbbu pour ma convertir mu insiste ne ma yow mii doo convertir ndax xam naa la ma ne ko danga ma naan romb dinaa la romb waaye yow xamoo ma ndax balaa ngaa xam nit ki ngeen jëflante fekkee dinga ma yóbbu nga yóbbu ma fekkee mënoo ma yóbbu rek nga wax ma mu ne ma nañ dem ñu dem mu yóbbu ma ci oustaz bi oustaz bi tuubal ma mu tudd Alimatu Fay comme demee woon na noonu nag ma nekkoon ci préparation voyage mu metti lool ci sama ay waajur waaye nag ni may def nag ba ñëw jàkkaarloog famille bi ne leen man jullit laa léegi moo des nag mooy problème bi mais comme que yàlla dafa ma dimbale woon moo ñaale ma fit li première occasion bu ma njëkk am rek mun naa leen ko wan mais nag du nekk ci ay wax waaye ay geste lay doon comme sama papa dafa amoon habitude bu yeewoo day ñëw taxaw ci pie bi jàkkaarloog garab yi ci diggu kër gi dama dégg mu yeewu rek ma profité gaawante ñëw jël satala rek commencé di jàpp di jàpp mais commencé nag xam naa dafa yaakaar damay raxasoog yooyu ba ma demee nag ba toll ci sarax ndiku nag ci la ma ne comment yow dafa mel da ngay jàpp ma ne ko waaw damay jàpp mu ne ma yow dangay ngay jàpp ma ne ko waaw damay jàpp sama yaa jógee ci biir nag ne ma lool du fi amee ñu topp ma nag xoqatal ma weeru koor la woon ñu dóor ma convoqué ma fi à Dakar dóor ma yanduma dóor 9 ba 2h takk ma ci chaise xupp ma ñu ne ma dañ may taal du lu ma weddi ndax boole nañ ma ak sama mag mu defar seringue poison pour pikiir ma ko yàlla moo ko échoué loolu sama yaay tere na ma lekk trois jours ci kër gi ma nekk ci weeru koor ñetti tàndarma laay lekk par jour waaye wallahi de mbokk yi du man yàlla la ndax xaw ma luy xiif xawma luy ñàkk ndax ba ma demee ñu ne ma ndax yow lu la tax a tuub na dangaa ragal safara wala dangaa bëgg jullit yi dajale seen alal jox la dama leen ne bu doon alal rek duma ñëw fii bu doon ay moyens rek kon duma ma ñëw fii kon li ma indi fii yàlla la kon nag ñu sonal ma def ma lu ne tey jii boo demoon mbuur laajte jamono yooyu ñu ne la kooku mooy doom bi gën a bon ci kaw suuf ndax li ma nekk jullit et pourtant dama leen daan jariñ waaye nag yàlla mi nga xam te ne nii moo moom dogalam moom moo dogal lii si man ma nangu ko sans papa bi ma jur maa ko mujjee gis ci buntu tribunal bi muy tribunal ak man pour ma delluwaat këram ndax bi may tub dix-sept ans laa am oo ma woon vingt ans pour mën a génn suñu kër mais ñu jàpp ma façon bu nekk ñu def ma ko sama yaram yi ba léegi ni am na ay cicatrices yoo xam ne ni si dóor yooyu laa ko jëlee mais nag mbokk yi alhamdulilah ndax diine rek mooy dëgg ndax xëy na fañ ma wonoon ne ma fii fu rafet fii xëy na fa ma dëkk melul noonu waaye sante naa ko yàlla ndax nit dund na ba xëy faatu amul sax benn pentre bu mu moomal boppam yàlla denk na ma kër ci kàttanu yàlla loolu du wërsëgu lenn lu dul islaam may encouragé sama mbokku jigéen yi xamal leen ne diine mooy dëgg ndax li tax diine mooy dëgg sama famille yi bañuñu woon ma julli mais li leen gêné mooy muuraay bi te maa ngi koy gis ay jullit seeni doom muuru ñu ne ko diñ ko dindi bu leen ko dindi de moom mooy dëgg incha allah ndax sunu kiiraay la ngeen baal ma bu baax lu si jub si yàlla la jóge lu si dëng man jàmbu mati bi la asalaamaaleykum wa rahmatullah jazakumullahu xayran yal na yàlla barkel ko kon mbokk kooku seen mbokk jurit la yàgg nañ ko dégg ci ay conférence yal na yàlla jàppale ko jàpp